aawuzu billaahi mina sheytaani rajiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina murit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen màggal di leen jox seen wàccuwaay tey jii nag dañoo nekk ci bis eh, màggal gi muy 18 safar ñu koy amale fii at mu jot Touba Pizza ànd koog magi Touba Toscana ah, liggéey bi nga xam ne nag tut tànk yor nañ ko benn nañ leen ci bëgg a ñëw wax leen ko ànd koog jëwriñ yi nga xam ni ñoom noon àndal muy sëñ Youssou sëñ Abdoulaye ak euh, sëñ euh, Fallou mi nga xam ne moo jiite alxuraan ji euh, ren nag tout tànk Touba Toscana dañoo bindub kaamil bindal ko Serigne Touba Xaadim Rasul sunu yaakaar xam naa dañ leen di bàyyi ak rek mu indi leen ci ay tuuti leeral bisimilah sëñ Fallou. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisaani yafqahu qawli mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi leen di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñoo ngi jégalu bu baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci bépp mbooloo moo xam ne ni ñi ngi taxaw di ñu seetaan fii ci Touba Monde bi TV ginnaaw loolu nag ñu ngi fii ci itali ci biir benn gox bu ñuy wax Toscana ci fii ci Pisa ñu fiy defee màggalug ci Touba gi ci ne tombeek le 8 euh, novembre 2017. ren jii nag mu mel ne karaamay Serigne bi da cee feeñaat ci di wane ne Serigne bi waxoon ne man lekk ni la Qur'an euh, di ci wax ne moom ya yàlla suñu borom moom loo na ko alquran muy man lekk ni la Qur'an waa waxuraa samadu nga xam ne ñun ñëpp. dégg ngeen baydoo ni nga xam noonu la ko waxee kon daanaka du jar ñu ciy dellu si da dem ba muy jeex ku ne xam ne sëñ bi fa wax ne moom la ne ko alxuraan tey ak ëllëg te loolee lu wér la ndax tey jii kët tout tànk yi nga xam ne ñu ngi fii ci biir Toscana ci biir màggal gi bi weer wi teeroo le premier safar ba egg ci la quatorzième jour ba ci lañ bind kaamilub alxuraan jébbal ko Sëriñ Tuubaa loolu nag mu nekk loo xam ne waxuma la fii ci Toscana waaye waxuma la sax ci itali waaye bu ñu xoolee Europe gam daj wala feneen fu ñu yaakaar ci àdduna bu weesoo ba ko fi Serigne Touba defloo ak Hizbut Tarqiyyah yaakaar naa amaatul ci ma àdduna bi. kon lii karaamay sëriñ bi la waaye nag du suñu du jàmbaar li Serigne Abdou Khadar Mbacke di wax naan euh, jàmbaar amul kuñu dimbali rek am tey jii loolu lañ dal moo ñu dal te yàlla nañ sax di ñu dimbali. kaamil bi nag ñu ko bind ñu ngi toll ci fukki nit nga xam ne lu yéeme moo ci ñi ko doon bind am na ñoo xam ne nii sax gisantewul mosu ñoo xamante keroog bi ñu dajale kaamil bi ci quatorzième jour bi te lañ doog a xamante kon mu nekk liggéey boo xam ne nii ah rafet nañ jot ne liggéey bu Sëriñ Tuubaa nangu la waaye loolu jubluwuñ ci dara dul ne wane ne fu ñu mën a nekk fu ñu mën a nekk ci àdduna Sëriñ Tuubaa rek lañ yaakaar fu ñu mën a nekk ci àdduna Sëriñ Tuubaa rek la ñuy gëm fu ñu mën a nekk ci àdduna la ngërëmal Sëriñ Tuubaa t la ñuy xeeñc kon li ñu def nii tubaab bi boo dee xool bi ñu génnee sëriñ dañoo waxoon ne raf sëñ sëñ daa waxoon ne rafiqi kitaabullahi wal mustafa nabi wa ashaabu bahri xiina aduuru nga xam ne génne nañ sëñ bi ci ak tooñ waaye biñ koy génnee anut ak kenn ku dul téereb yàlla bii ko xam ne moom bindal tey te sëriñ bi wax nañ ne mus na ci loxoom bu sell boobee lu alquranul karim jii kon nag liggéey bi wane na ne wax dëgg yàlla war nañu rafet njot ne liggéey bu sëriñ Tuubaa nangu liggéey bu ko gënal bokk ci ay liggéeyam mooy bii ko defal donte ñi ngi tax ci yëpp kon nag ñu ngi santaat Sëriñ Tuubaa bu baax di wax jërëjëf Sëriñ Tuubaa ginnaaw bi nga xamee ne jàng na bind nañ kaamilu Sëriñ kaamil kaamil bi nga xam ne euh, moom lañ bind def ko àddee Sëriñ Tuubaa ginnaaw kaamil bi tamit ku xam ne ren jii màggal gi Sëriñ Sidil Moxtaar ci première safar bi dafa woolu mbokki taalibe yëpp ñu dajee ci jumaay Sëriñ Tuubaa ju sell jee tàmbale safar bi ñu tàmbale ko alxuraanul karim ca guddi ga ñu fanaanee jàng xasida ba fajar loolu tamit tax na ne ñu nit ñu xalaat ni kon loolu ab royukaay la ba tax na première safar tàmbali nañ ci ñun it ay kaamil nga xam ne bindal nañ sëriñ bi ab kaamil waaye tamit jàngal nañ ko ñetti téeméeri kaamil ak ñaar fukk ak ñeent ñun tut tànk yi yi ngir def ko addiyee sëriñ Touba ci 18 safar bii kon loolu tamit mu nekk leneen loo xam ne nii euh, wax dëgg fa yàllaahu karaamay sëriñ bi dëgg la nga xam ne jàngal nañ ko euh, ñetti téeméeri kaamil ak ñaar fukk ak ñeent loolu nag dañ ciy santaat sëriñ bu baax boole ko kamil arxaan bi ñu bind loolu tamit yëmuñu rek ci arxaan euh, ndax de xaside yi nga xam ne moom moom moom lañu ko seetlu ko teel di moom it def nañ ci ay lim takko takko takko takko ku ci mel ne suñ mortuwee moo yoroon loolu xam naa mii ne ko di ko dajale dañoo gisante ci diggante bi waaye kon sax ma indi laa leen lim booyee lim yooyee waaye tamit euh, xam naa du ñàkk euh, ci beneen interview ak Touba Monde bi TV mu ñëwaat ci ci yeneen interview yoo xam ne nii fii ci màggal Touba Toscana fii ci Touba Toscana euh, dana ko def kon mbooloo mi loolu lañ amoon ci loo xam ne nii moom lañ bëggoon a jàllale ci mbooloo mi di tamit tout tànk yi nga xam ne ñu ngi xam ne la bëri nañ ay ahlu nekkul ne bi ci alxuraan rek lay yëngu bëri nañ ñi nga xam ne ñu ngi ci xasida yi nekk ci ci kuréel yi ñenn ñi ngi ci xidma yi ñenn ñi ngi ci faneen kenn ku nekk fa nga mën a rek te mu seq te mu tegu ci ak xam-xam euh, ñi nga xam ne ñi ngi ci kon nekkul ne liggéey bi dafa bëri ak tantu wala dara lépp bu ci defee dañu ko bëgg a teg ci xam kon nag dañuy sant bu baax ñu ngi sàkku ñëpp yaakaar yaakaar ci ñëpp nag di dalal loxo ñëpp fépp fu waaye ab xale mën a nekk bi Toscana ñu ngi lay woo ci biir liggéey bii nga ñëw dugg ci ñu ànd ak suñu mag ñi suñu kilifa yi liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax loolu rek mooy li am njëriñ zahiran wa baat baatinan kon nag ñoo ngi woo ñëpp di woo tamit Europe gépp nañu xam ne fu waay mën a nekk Sëriñ Tuubaa moom mooy ki moom fépp mooy ki ki noyal fépp kon nañ gën a góorgóorlu fuñ mën di nekk ñu fexe ba xam ne ñun ñii ay taalibe Serigne Touba lañ ay murid lañ buñ buñ buñ ñàkk suñu bopp fayda fenn buñ wane tamit lenn luñ luy yabe wala lenn luñ ñuy xeebe ñu mën di nekk nañ saxal suñu bopp ci ci taalibe sax ci di xeeñtu ngërëmal sëriñ bi sax ci di bëgg Serigne Touba gëm yàlla gu wér nag te wóolu ko suñ ko defee rek àdduna ak alaaxira danañ jariñu kon xam naa kàddu yi dañ koy daal wàccee foofu tey jéggalu ñëpp. di ñaan suñ borom bis bi ñu fekk koy ati ati ati at seen mbokkum taalibe fallu ñu mo doon jalle kàddu yi ñu ànd ko tuba toskana gep ak tu tangi tuba toskani ak wa tuba monde bi kon xamna dañu taxlu fofu di jéglu ñëpp di wax yassir lahum bihi allati taassara fa kullu ma yassartahu tayassara waftah lana kulla babin kunta fatihahu lissaalihiina min alxayraati yallahu wasluk bina nahja rusdin waqfina zalalan wata ruddina aljinna walcheytaan yallahu والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته